bisimilah sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñépp nee na li ko gën a ñor ci wax ji. waaye dafa am lu ko gën a ñor lu jiitu loolu. loolu mooy. sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal Serigne Touba te séq ak ñoom liggéey bi li dox sama digganteek sama bokk yooyu laa bëgg ñëpp seere ko tey na ñépp xam ne ci ñoom sama bokk yooyu laay yees lu sama jaayante ci Serigne Touba

ñu gën a xam ne liggéey bii liggéey bii lépp loo xam ne lépp loo xam ne lu yitteel la lu yitteel la dama koy ànd ak ñoom dama koy ànd ak ñoom rek sama bokk yooyu bañ gis na mu gën a nasoo ba gis nu mu gën a nasoo ñu door a yëkkati loola loolu yi mooy li ci ëpp solo li ci des nag daf leen dama leen di xamal sama bopp ndax wax jot na ndax wax jot na kon li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi li nga xam ne moo jëm ci liggéey bi muy wàllu fàttali gi muy wàllu fàttali gi ak wàllu soññ bi ak wàllu soññ gi def nañ ko ci këyit boo xam ne bind nañ ko lolou mom mi ngi fi ñi ko war a jottali it danañ ko jotali inshallah li ci dess nak ma xamal sama bop ñi ma bokkal liggéey bi ñep sama doxine sama doxin sama doxin rek laa bëgg ngeen xam ko ba agsi fii man bi ma xàmmee sunu borom daf ma nattoo mënumaa def lu ma xamut moo tax nag sama doxin wu jafe la wu metti la li ma yàlla nattoo noonu dama daal di xam ne jàng dama daal di xam ne nag jàng àdduna rek nag moo jiitu jàngiwuma ko nen sama xel ak sama jikko ko nen nag lu dul sama xel ak sama jikko ci loolu laa nekk ay at nekkuma ci dara. nekkuma ci dara. boyal sama bopp boyal sama bopp. nekk ci loolu nekk ci loolu. la loolu andil. la ma loolu andil. gis naa lépp li ma ma bëggoon li ma doon gëstu lépp ak li ma bëggoon lépp. gis naa li ma doon gëstu ak li ma doon bëgg lépp. lama ci jëlee. la ma ci jële mooy xam ne. mooy xam ne. tegu ci yoonu jub. tegu ci yoonu jub. mooy amul benn benn yaakaar ci lenn lu lu tegu ci yoonu jub. awma benn yaakaar lu dul tegu ci yoonu njub rek loolu alhamdulilahi rabbil alamin nee na ma nekk ci loolu ab diir ma xam ne njub lu mu am am njëriñ njubug yàlla njubug yàlla fa la njëriñ la nekk dëgg dëgg amu ci am naa ci tawféex. kon am naa ci tawféex. gannaaw diine ji. gannaaw diine jee ngi may gëstu sama diggante ak gëstu nag sama diggante ak diine ji. lépp itam bëgg diine ji wér. lépp gëstu gi ngir bëgg diine ji wér rek. ba ma ca amee ab diir. ba ma ca amee ab diir. ma am ca tawféex. la ma ca jëlee. la ma ca jëlee. xam lay dëgg dëgg diine ju wér a wér ba ma ci agsee foofu ma daal di sóobu nag ma daal nag ci biir sóobu gi nag ci laa daal di jëmee ci sëriñ bi ci laa di jëmee jàng nag sëñ bi di ko jàng di ko jàng di ko jàng ba am ci tawféex bi loolu amee gannaaw xam naa gannaaw xam naa liy dëgg-dëgg diine xam naa sëriñ bi kon nag dox rek moo ci des ma sóobu ci biir sóobu gi nag njàngaleem sëriñ ci njàngaleem sëriñ bi. ma xam ne. ma xam ne. sharia ak xaqiqa ñoo fi ne. muy diine ji. ci njàngaleem sëriñ bi. ci njàngaleem sëriñ bi. am na am na lettre buñ ko joxoon. am na lettre buñ ko joxoon. ci mbirum yoon wi. ci yoon wi. ci xam ni na muy na ci xam yoon wi lettre booba ci xamle yoon wi naka muy doxee la loolu mooy jawaab yi Mor Sëy sëñ Mor Fallou Sëy ca lettre boobee ca la waxee ni la mu njëkk a tontu ndax dañ koo njëkk laaj moom sëriñ bi ci lan nga nekk mu ne moom nekkut fenn lu may ci ñaari laafi sharia ak xaqiqa ne leen nag sharia ne leen nag sharia mooy li ñëw ci alquran mooy li ñëw ci alquran xaqiqa mooy li nekk ci lawul mahfuz la nekk ci lawul mahfuz nag la nekk ci lawul mahfuz nag dafa am lu ñëw ci alquran dafa am lu ñëw ci alquran am lu dikkut foofu la ca yem. mu jëm nag ci. mu jëm nag ci. ginnaaw daa bëggoon dox xam doxinu yoon dëgg dëgg doxinu yoon wi. dafa bëgg a xam doxinu dëgg dëgg yoon wi. dénk leen mu dénk leen. ne leen na ngeen di jàng téere tawxiid yu wér yi. na ngeen di jàng téere tawxiid yu wér yi. te di ko jëfee te di ko jëfee. di jàng téere fiq yu wér yi. di jàng téere fiq yu wér yi. te di ko jëfee te di ko jëfee. di jàng téere tasawuf yu wér yi. te di ko jëfee. amaa nag. amaa nag. ñi nga xam ne yàlla da a jox da leen a jox ña nga xam ne suñu borom moom daf leen a jox ak jagle. na ngeen leen bàyyi ak seen jagle. na ngeen leen bàyyi ak seen jagle ñoom. loolu yi ci la Cheikh Ibra Fall bokk. foofu la Cheikh Ibra nekk. loolu. bi muy jàng sëriñ muy jàng sëriñ bi. loolu ci la bokk waaye nag may wéy rek di gën di jàng sëriñ bi rek topp ko rek ci sama xel ak sama xol ak sama pëseef ak sama jikko ma topp ko rek topp ko rek ba am ci tawféex ñëwuma kenn ci sëriñ bi ñëwuma kenn ci sëriñ bi waaw waxoon naa ni ba ne ba ma ma daal di ci loolu rek. ma daal di nekk ci loolu rek. di sharia. di sàmmonteeg sharia. bàyyi ma nekk ci loolu rek. alhamdulillah nekk rabbil alamin. suñu borom dima ma gàttandoog tawféexi sëriñ bi. boole ko ndimbalam nag. mooy sama doxin ba agsi fii ma agsi tey sama téeméeri xel sama téeméeri xel musta xalaat mukk nekk ne ne lii dana am sama xel musu ci nekk waaye sama xel musu jóg waaye sama xel musu jóg ci sama xalaat ni bëgg rek yoon wi dox ni mu doxe loolu moo moom ngeen gis. loolu moom ngeen gis. ma don ko doxé ma doon ko doxee. kon gis ngeen. kon gis ngeen. ni ma àndee woon ak samay kilifa. ba ci seigne Cheikh Sidi Mokhtar mi doxine wo xamne ne. doxin woo xam dox ga yomb na ma lool. dox ga yomb na ma lool yomboon na ma lool. ba ci sunu jataay bii ci loolu ba laa ne. man foofu laa toll woon. man foofu laa toll woon. lii dal sama dal ci sama kaw bett ma. waaye. waaye. dolliwu ma dara. lu dul ma gën a am pëseef ma gën a am pëseef gën a am ak dogu gën a fas yéene liggéey rek loolu rek la ne sama sang yi laa leen di wooye duma leen wax sama bokk yi kon dégg ngeen ko kon dégg ngeen ko yéen a jiitu yéen a jiitu kon bokki taalib yi dégg ngeen ko kon bokki taalib yi dégg ngeen ko muntaxaa ngoog muntaxaa ngoog sëriñ muntaxaa ku dem ma dem ku dem ma dem ku demul ma dem li gis nag waxtaanu àdduna rek la ndax diine ji ba sangub mbindeef yi wàccee ba yi wàccee ba léegi alxuraan wàcc. alxuraan wàcc. ànd ak sunna. ànd ak sunna. xadisu yonent bi. mu nekk fi mu nekk fi. ba léegi ba léegi. doomu aadama yi. doomu aadama ki leen bind xam seen mbir. leen bind képp xam seen mbir. waaye boobaag léegi. waaye boobaag léegi. junni at la ak ñeenti téeméer junni ak ñeenti téeméer tegal. القران نغي في سنة نغي في بروم خام خام ياتال نانيو ديكو ديكو ديكو باتاي باتاي ساغنو نيو لوني ورا واخ لوني ورا واخ لوني ورا ديف ديف نانكو لوني ورا واخ واخ نانكو واي واي بو خوله مبولومي بو خوله مبولومي jullit yëpp. alxuraan moo alxuraan moom yi. alxuraan moom yi. ak sunna ak coono yi boroom xam-xam yi li mu jëriñ ci nit ñi bari li mu jëriñ ci nit ñi bariwul. da coono yi bari bari li mu jëriñ nit ñi bariwul. loolooy loolu mooy li nekk. loolu moo tax ma jiital wax ji ma jiital. loolu moo tax ma jiital wax ji ma jiital. ci sama bopp. Hmm. loolu mooy li nga xam ne mooy doxin wi. mën naa yi nga xam ne ci la yoon wi war a doxee. wax naa leen ci sama bopp. la ca des nag. lépp a ngi fi. bindul naa leen. la nga xam ne mooy moom la liggéey bi laaj. maanaam ci fàttali ak soññe bind nañ ko bind mu wér mi ngi fi. mu ne lool yi tënk naa ko bindloo ko sëñ Muntaxa mii ak man mii ñu tënk ko hmm. loolu nag incha allah lu ñu man rek danañ ko tasaare incha allah eh, la cay dolli ko bon mooy. sama bokk yi am tawféexi dëkk ci dëkk bi sama bokki taalibe yi am tawféexi dëkk ci Tuubaa gii tawféex la loolu dama leen ci bëgg a wax nag sama xalaat ngir laa leen ku am tawféexi dëkk dëkk fii nekk ci wetu Sëriñ Tuubaa waroo koo booleeg dara bu bu dee looy wut sëñ bi noppi na ci sëñ bi noppi na ci. boo fi nekkee ci boo fi nekkee ci nekk ci nag ci na nga fi war a nekkee. sa dara du des gannaaw dara du des gannaaw. Ah, boo fi nekkul na nga fi waaye nag boo fi nekkul ni nga fi war a nekkee. ah loolu moom dañ lay bàyyi ak sëñ bi rek. Hmm? kon ci ko xalaat ni ma ko bëggee ni ma ko bëggee woon ci sama sama sama laabiré. kon ni ma ko bëggee woon ci sama laabiré. bokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ñu dollee góorgóorlu ñu dollee góorgóorlu. xam li li ñu nekk mooy xam li ñu mooy lan. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. sàmmonte ak dëkk bi. mooy sàmmoonte ak borom dëkk bi. dëkk bi. na la ko gënal ci dëkk bi. la ko gënal ci dëkk bi. loolu jafewul a xam. loolu jafewul xam. xëy jafe gi mooy jafe. xëy na jëfee gi moo jafe waaye xam ngi moom jafewul waaye nan bokk góorgóorlu waaye nan bokk góorgóorlu nun ñëpp jox dëkk bi àqam jox dëkk bi àqam mooy tax mooy tax mu day bokk ci jiitu ñu war a liggéeyal day jiitu ci yi ñu war a liggéeyal sëriñ bi dëkk bi dëkk bi ñi fi dëkk ñi fi dëkk ñi am tawféexi dëkk fi seen xel warut xalaat lenn. seen xel warut xalaat lenn. luñ ne mën na leen a jëriñ. luñ defee ne mën na leen a jëriñ ci àdduna. loolu waru am. waruñ koo xalaat. sëñ bi doy na leen sëñ bi sëñ bi war na leen doy sëkk. te am xel mu dal ne. te am xel mu dal ne. liñ namoon di ko wuti ci àdduna. namoon di ko wuti ci àdduna. lépp dana leen fekk. ak ñi nga xam ne. ak ñi nga xam ne. dañuy jóg jëm ak ñi nga xam ne dañuy jóg jëm si ci dëkk bi. ku ci jëm dëkk bi ku ci jëm si. sëñ bi rek sëñ sëñ bi rek moo la fi war a indi. moo xam da ngay siyaare moo moo xam da ngay si ngir yàlla. loolu tooyaay booy boppam la. moo xam da ngay ñaan si nag. moo xam da ngay ñaan si nag. say ajo say ajo kooku yaag sëriñ bee. kooku yaag sëriñ bee. kon ku jëm ku ci dëkk bi. kon ku ñëw ci dëkk bi. koo mën a doon koo mën a doon. warulaa séntu njëriñ fenn fudul ci sëriñ bi. warulaa séntu njëriñ fenn fudul ci sëriñ loolu mooy li am. loolu mooy li am. kon nag maa ngi laabiire. kon nag maa ngi laabiire. ñii ñëw ci dëkk bi ñii ñëw ci dëkk bi. te yitte tax leen a jóg. te yitte tax leen a jóg. buñ jóg mukk buñ jóg mukk. defe ne mën nañ fee jariñu. defe ne mën nañ fee jariñu. ci lu yem sëriñ bi. lu yem ci sëriñ bi. siyaare ko ngir yàlla siyaare ko ngir yàlla. ñaan ñaan ñaan ko seeni soxla. ñaan ko seeni soxla. lu lu dul loolu. warul ñu di ko wut si ci dëkk bi. warut ñu di ko wut si ci dëkk bi leneen lu loolu. ndax ku ko fi wuti itam. ndax ku ko wuti itam. <laughs> doo ko mën a am doo ko mën a am. li ci des nag moom. mooy sama bokki taalibe yi. sama bokki taalibe yi maa ngi jëm ci sama bokki taalibe yi. ñoom nag. ñoom nag.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 nekk fi naan ab jullit laa ab taalibe laa rek nekk ci sa bopp noonu de du nu ñu war a jëflante ak sëriñ bi bokkut ak ni ñu war a jëflante ak sëriñ bi ak lu nu ko tëlee tëlee dañoo war a jéem nekk ci lim bëgg sëñ bi nag yàlla dong la bëgg ak jaamu yàlla loolu ba mu jógee loolu ba mu jógee talul dara lu boromam talul dara lu boromam moom sëriñ ba ko boromam joxe joxañee yonent bi ba ko boromam joxañee yonent bi mu ñëw ci yonent bi mu ñëw ci yonent bi daal xam ne nag daal di xam ne nag foofee la tuddee abdun lillahi wa xadimu rasulihi foofee la tuddee abdun lillahi wa xadimu rasulihi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 ba mën liguel serigne bi. ci sunu bop ci sunu bop ak ci diine ak yi. bi dafa bi dafa te yaatu ndax ndax bi. ndax bi. jublu yàlla. jublu yàlla. te muy ci yow jublu yàlla te muy ci yow. xam bi xam bi ci jamono ci jamono yi weesu. dama daa wax ne. dama daa wax ne. yoon wi sori na lool. yoon wi sori na lool. waaye dara yóbbu ko fa. waaye dara yóbbu ko fa. lu dul bëgg sëriñ bi képp ak doyloo ko. waaye xamuñu sëriñ bi. waaye xamuñu sëriñ bi. dunduñu sëriñ bi dunduñu bi. nun ko gën a xam. nun ko gën a xam. di gën a mucc. di gën a mucc. di gën nekk ci li di gën a nekk ci li bëgg. gën a luñ ko gën a dund. muy topp ko. muy topp ko. ci ni mu doxee. ci ni muy doxee. ak ni mu ko bëggee ci nun ak ni ko bëggee ci nun kon loolu mooy dund sëriñ bi. loolu mooy dund sëriñ bi. loolu nag. loolu nag. ku ci góorgóorlu ku ci góorgóorlu. xëy na yombul sax. xëy na yombul sax. waaye ku ci góorgóorlu. waaye ku ca góorgóorlu. da ngay gën di dajeeg tawféex rek. da ngay gën di dajeeg tawféex rek. di gën a xam. di gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a xam. di ko gën a dund. kon nu góorgóorlu ci loolu. kon nu góorgóorlu ci loolu. lee. lee. mooy tax ñu nekk ay jullit dëgg. lee tax li ma njëkkoon a wax léegi mooy tax ñu nekk ay jullit dëgg. muy fonk suñu diine muy fonk suñu diine. te muy dëgg ci ñun te fasoo ko. te fasoo ko. sax ci dàkk. wa sax ci dàkk. li ci des. li ci des. mooy nu xam sëriñ bi. mooy nu xam sëriñ bi. di ko dund di ko dund. ni ko bëggee ni ko bëggee. ak ni ko doyloo ak ni mu ko doyloo. xam gi xam gi. ak dund gi ak dund gi. yombut yombut. waaye ku ko waaye ku ko sàkk wut sàkk ko. te muy dëgg ci yow muy dëgg ci yow. muy sa yitte da nga ci loolu. moy sama diggante ak sama mbokki taalibe yi la ca dolliku la ca dolliku moy sama diggante ak ñi ñu sékk réew mi moy ñi sama diggante ak ñi ñu sékkal réew mi mo xam kilifay diine yi la mo xam kilifay diine yi la mo xam ñi yalla denk doxinu réew mi mo xam ñi yalla denk doxinu réew mi ñom lima sékk ñom ñom lima sékk li ak ñoom ndax man kat ndax man kat taluma dara ndegam la ma weesu ndegam la ma weesu taluma ci woon dara yàlla dimbale na ma nag may dund ak ñoom maslaa may dund ak ñoom maslaa ak ci ñëpp nag nag waaye fekk na waaye fekk na taluma ci dara taluma dara lu dul sëriñ bi lu dul sëriñ bi taluma ko lu dul am ngërëmal sëriñ bi taluma ko lu dul nekk ci lu neex sëriñ bi taluma ko waaye nag maslaa mënut a waaye nag maslaa moo mënut a ñàkk. ci maslaa laa laa fii. ci maslaa laa egsee fii ma egsee. ànd ak ñëpp tàmbalee ko ci samay kilifa. tàmbalee ko ci samay kilifa. ba am seen ngërëm. ba kon. kon noonu rekk la. nan góorgóorlu ñun ñëpp. te xam ne. yoon waa ngoog mooy li ma wax rek. mooy sama diggante kilifa diine yi. mooy ni ma wax rek sama diggante kilifa yi diine yi. sama diggante kilifa yi nga xam ne ñoo yor ñoom la yàlla dénk doxinu adduna wi. ak sama ak kilifa yi nga xamante ne ñoo yor doxinu adduna wi. ci biir maslaa ci biir maslaa. am dama leen a ameel seen aqi bopp. dama leen a ameel seen aqi bopp. waaye jum ci mën a doon. waaye jum doon. danaa leen jox seen aq ba mu mat danaa leen jox seen aq ba mu mat sëkk. noonu rek la noonu rek la. ndax loolu leer na. ndax loolu leer na. kon nag